mbokk internautes yi dal leen ak jàmm Lansana Gagny Sakho xam ngeen ne moo nekkoon nag DG bu ONAS euh, moom mi nag euh, daanaka jiite woon office national wàllum assainissement ñu daal di koy limoger bu yàggul dara ñu gis ko nag mu dem am ab àndandoo goo xam ne mi ngi koy def ak ki nga xamante ni Ousmane Sonko jiital Pastef euh, moom mi nag génn na moom Lansana Gagny Sakho xam leen ni nag ci benn audience boo xam ne naroon na ko accordé Ousmane Sonko daanaka ci atum 2019 la woon ci ñeel nag wàllum benn projet de d'assainissement bu ñu doon def ci diwaanu Pikine ginnaaw inondation bu métti bu fa amoon mu bëggoon koo daal di nag accordel interview moo taxoon nag tutelam di nag ki nga xamante ni muy Serigne Mbaye Thiam daal di koy nag euh, wàccee ñu daal di nag sàkku ñu wàccee ko ci poste bi nga xamante ni euh, moom la nekkoon boobaak léegi frustration mel ni nag lu ko gagné moom Lansana Gagny Sakho ne nag euh, dina daal di nag joxe le maximum muy dix mille pour cent noppi na ngir soobu ci moom mi nag euh, daanaka nit yu bëri sax ñu ngi koy daal di lynché di ko xasee nu nekk euh, ñi nekkee ci pouvoir bi ci réseaux sociaux yi ginnaaw bi mu amee benn audience boo xamante ni euh, Ousmane Sonko njiital Pastef les patriotes daf ko am séq ak moom ñu attaqué ko nu nekk naka par le camp du pouvoir ancien DG bu ONAS euh, di affirmer nag regretté wul benn yoon ak tam moom ne Ousmane Sonko sénégalais la euh, comme tout le monde am na vision te nag di waxtaan ak moom c'est comme nga daal di waxtaan ak Khalifa Ababacar Sall Bamba Dièye wala keneen ak keneen ndax boo xamante ni nag lu la wax ak Ousmane Sonko d'autant plus que nag yàgg na lool ne waxante wu ñu mën a xam moom ne am nañu ay points de convergence yu bari maanaam am nañu nag lu bari loo xam ne ñun ñaax ñi bokk nañ ci ay principe ak i nag déggoo nañu ko comme nañ itam am nañu yoo xamante ni nag daanaka déggoowuñ ko mais je pense que nag li ñuy daal di boole moom ak man mooy passion bi mu am ma am ko man itam moo daal di tax sax mu ma poussé woon ma daal di liggéey ak président Macky je pense que itam moom mi nag nekkul même personne Ousmane Sonko moom moo nekk ko important importante waaye nag vision bi mu am ak projet bi nga xamante ni moom lay porter saay su nekk bi la vision itam jeunesse bi euh, daanaka du ma wax euh, sénégalaise mais jeunesse africaine ñu ngi commencé di comprendre li nga xam ne mooy enjeu euh, bu nag Ousmane Sonko daal di nag am may revendiquer place am itam ndax mbir yi fam il faut mu daal di nag changer te nag pour mu changer fa ñu teg fi koo xam ne daf koy changer pour idée te nag daanaka kenn du ko daal di nag rey dina joxe nag le maximum muy dix mille pour cent euh, pour que euh, projet Pastef bi dal di nag mën a dem moom Lansana Gagny Sakho lu nu mel la daal di nag le ne nag ci wàllum politique moom il faut da jamais dire jamais te nag euh, bu jaree ñu daal di nag sobu ci lu bari ngir daal di nag am atteindre say objectif ak nag dem liewu ak koo xamante ne ngeen a bokk vision su ko jëree da koy def te loolu doo ci xaar nag feu